amu ci kenn ci ñoom ku ñemee dem ci sama turandoo te tàgguwulam kenn ci ñoom <coughs> maa la ko wax loolu moo am ndeysaan Alaaji Baara Njaay nag mom mo ca gën a doy waar ndeysaan waaye booba tànk yi sax dox bu baax mënatu ko mu ne ma dama bañ rek sunu daara ji ngeen def ko daaray ambiance def leen ko daara tarbiya moo gën wala ndeysaan dama bañ rek sunu daara ji ngeen def ko daara ambiance def leen ko daara tarbiya moo ma ne ko ok naa ko jottali ñu ma ko war a jottali Alaaji Baara Njaay ma ko wax wala ndeysaan moom itam dafa dem rek gaañ <laughs> yàlla xam na ko yow dañuy tàggoo dëgg-dëgg.